yàlla yow yaa yërmaane dina génn kër mbaa mu réew ni bis ni mel looloo ñu teral waaye dina génn kër mbaa mu réew ni bis ni mel looloo ñu teral gëm dolli muñ bi ñu dese waaw tey nag damaa ñëw nag moom li tax ma ñëw nag aa ah, mooy Fat Faye madame Guèye ma Mamadou Guèye kooku mooy meeru Jidda Caaroy Kaw la première dame de Jidda Caaroy Gol AGR yaay ja AGR yaay ja AGR la moom di jigéen ju baax nag di jigéen ju marqué empreinte am ci réew mi faat fay fay biram na waagaan dugu dugu waagaan xandis waagaan waagaan sukumba sandiar maye koom Mamadou Gueye nag ah président Macky Sall da koo xool nag ba mu neex ko toj na jidda caaroy kaw ndax jidda caaroy kaw kat kun demoon far la maire ba kon def nga fa lu waaw waaw sa jabar ji nga xam ne nag mooy euh, faat fay marqué empreinte ci réew mi faat fay bi marqué empreinte am ci réew mi waaw daal di nag ubbi nag yaay ji agro di ci dimbale jaam yi yéen a mën a ànd ñoxito ñoxito mën a ànd montre yëpp bokk heure faat fay ñu bon yaa nga ca orloose ba Mamadou duggee nu dénk lan impôt et domaine impôt et domaine yor ko yombul suuf si nga marqué nag sa empreinte nag Mamadou duggee ndax am na noo doon demee noo xam ne nag kenn du la fal nag kat directeur u impôt et domaine yàlla defatu la meeru ja caaro ji day kow ngay nit ku baax di denc jigéen ju baax ñu naan ko faat fay ñàkk tëdd rek lay dunde gëm yàlla bëgg la Mamadou Gueye yàlla na la yàlla bàyyi sa jabar ji ngeen sokkorloo ne asamaan ak soo faat fay man ma ay sa artiste comédien maa la bëgg ndax damaa bëgg koy def social kuy dimbale ay nit fekk fu dara nekkul nga def fa dara kon yow faat fay loo laal moo gën loo laalut la première dame de de caaroy kaw Madame Guèye la femme battante la grande dame qui marque empreintam ci réew mi faat fay xoolal sa société yal na ci yàlla teg loxo ma Guèye nag maa ngi ci sa kanam foo sëppe sam dënd xoolal ma dinaa rëppatal samay junjung faat fay laay wax wili wili piiw yërmande yàlla yaay sunu borom yàlla yaay borom yërmande yàlla yaay sunu